mbokk yi xale yaa ngi ci digg géew bi et eh, deuxième combat de la soirée mbokk yi Zal Mbaye numéro moo féete à gauche moo féete à droite Black dox di ci ci ñun Zal mbay numéro 2 Black cokkaas na léegi Black Zal Mbaye numéro 2 Black cokkaasaat na Black Zal Mbaye numéro 2 Zal am koy xool mel ni ko gisul. xale yi seen combat bi yàgg na. Eh, Zal Mbaye Zal Zal Zal daan na ko Zal daan na Black Zal Mbaye daan na Black Zal Mbaye daan na Black takk na ko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 Demba Baldé añ na ko léegi eh, Demba Baldé dal na ko léegi Bocin am na ñaari avertissement trois Demba Baldé am na deux avertissement arbitre ba sifflé waat Demba Baldé Océan Demba Balde Demba da koy ëñ ko. waa ji bëree tam Demba Balde ak Océan. seen combat bi yàgg na. Demba Baldé Océan bij na ko moo ngi koy mbot teewul waay teewul mu ngi tànn daan na ko Demba Balde Demba Balde daan na ko jël bu rëy waaw Demba Balde daan na ko tey bés bu ñu laaj. waaw lii la laaj dal. lii bu demee si ginnaaw daa am nooy dal lii wala lii. sa adversaire nag daa mel pare na de. waaw xaaral ma ñu ci biir ak léegi ñu xeex. day xeex fort day am lu ñàkk. il faut xeex il Bamba. lan maa yeb wala lii. tey maa yeb. bakkan bi tey fii. fii bi fii. bilaay kon baax na fay ñii yow ma seen fay ñii barke sëñ Bamba tey Bawol yëpp a génn Medina yëpp kenn desul xoolal lii waa Mbomboy kenn desul yaay xoolal lii tey daal moom bakkan na ngay jaay barke Serigne Bamba kon kii du daan du daan eh, ci loolu lu mu jàpp gaay naka nga ñëw naka waa sant yàlla rek xama ñëw ànd ak waa Kër doole ma ñëw jàpp booy daan rek xam nga chaque ma koy wax moom ñu ne ko moom laa war a bëre quoi ñu war a bëre ñu ngi si kaw. ñu ngi si kaw waaw bi laa ñu ngi si kaw. du ko mais nee nañ tey nag mbooloo bi ko topp te ba sëñ Saalum maa ngi ma ñëw topp sama ginnaaw. mais tey ngay bëgg xale boo xamante ni ci làmb nga nangu may chance tey naka nga nar a ñëwee. waaw bilaa rek ñëw dal tey gars yi ma ma ñëw jàpp daan toogaat sama place. est dina yomb dina allah rek bu dawal ñu bëre dina daan ko maa ko daax lépp booy dañ maa yónni yoo xam ne barki alxuraan di kaw la ne ñëpp yaa tax eh, eh, eh. non ci kanam loolu léegi lay yow. am na kii. am na xaatim bi ma sax. xaaral jël ñu xaaral naan bu yàq. waaw. Gàmmu nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax ci loonee. sant alhamdulilah. waaw ni daan ñëwee rek lañ ñëwee. waaw mais dañ ko di nga ñaanal yàlla ko yàlla may ndam si barke Mouhamed sallallahu alayhi yokk na waaw ko di nga ñaanal yàlla ko yàlla may ndam. ni mu waroon a def lépp dem na ko. waaw. billaahi. a combat yi passé ni mu ko bëree noonu lay bëree incha allahu rabi yàlla defal ñu ndam. man maa ngi nii ma combat ba léegi dugub mbëbër mu ngi fële dama seeti nga mu jël combat bi ñu bëre. diggante yaa ngi dem dox ko mu ngi fële ne nga gàmmu ne ngeen bëree. loolu kay maa ngi andi a. ci loolu. sant yàlla rek. tey naka nga ñëwee. waaw ñëw rek ànd ak samay mbokk waa tamit ñoom ñëpp ñëw jàppale ma quoi billahi da ngay ma xam boo fas yéenee jàmmaarloo moom moom nee na moom doole moom nee na moom doole moom daa ko bëri bu ñu duggee si biir na wane loolu mu wax. mais bi nga tuusee dama gis sawarte ci yow gis doole ci yow tey. non dama nit doole doole dama ànd ak booy liggéey kii tey jii dina am fii. mais su ne ko daw yam daan daw signature tey lan la wax na la waajalee. lu ma indi fekk fi man damay bëri jël suma temps yaa xam diw ma ne. man nga teg le deuxième. troisième moom day Bébé Zoho Lé Siné eh Bébé Zoho lu mu bëgg a def nii Lé Siné Bébé Zoho Lé Siné Bébé Zoho xale yi bëri nañu ba mi temps bëri nañu combat bu métti te na ko leesin na jël na tànk ba doxay daan waaw leesin na jël na tànk ba daan ko waaw waaw leesin na daan na ko bëre na bëre bi xeex na xeex bi daan na daan bi. nuyu naa. waaw si sa bay nañu xel xel xel. waaw mais xel mu daal rek. waaw xel mu daal rek am naa suñuy gannaaw gin. su ma ni gin caati yoof. waaw loolu parce que waajal fii sa kati si. koo bëreel fii sa kati. ka ngeen waaw bu saka da bëre waaw kullu mi tayo loolu xam nga li la wax bu baax ya bu ma ñu may àndal parce que Serigne Saliou Mbacké fu la jom fit fayra moo fi ñëw fii dama koy di jaare waa Yoff yëpp dañu amaale benn des sama copain. bilaay bi combat bi taxawee la wàññeeku. tey moom moom laay bëreel vraiment. combat est-ce que dina am xeex. non loo xalaat mën na si. sakati naanaan la de. naanaan la mais maa ngi gën a doon naanaan. du jël xalaat sax bu xalaatee day ñaag. billahi tey doy na waar de. billahi. eh. lii mën la. lii la lii lii lii. waaw. mbooloo mi doy na waar. gis nga lii rek diggante caaree jàmm gën la rek. billaahi ñu ne ñoo bokk si làmb. billaahi wallaahi. lu mu laaj. lu barki Serigne Bamba. du ma wax. du ma wax. du ma wax. waaw yow. saabu saabu un ba ba trois. waa Rambey ñëpp sam-sam jug caaree jug ramdaan jug jàmm gën jug tey lii rek nga gis am na ñeneen tasaat xale la te dafa war a am ndam tey. lan moo a mi ngi si moom muy liggéey ful la fayda ak joxe cër ak bëgg te mi si moom. man mun naa la jàpp daan xam naa sama loolu yomb liggéey c'est le travail qui paie.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 waa kooku moom loolu loolu moom la concerné man man sama yoon nekkul yooyu muy wax man sama bopp rek la xam. soo yoroon ci ndax yaa ngi moom yéen a war a sama yoon nekkul ci waxam yooyu muy wax sama yoon nekkul ci day bàyyi ba la 14 mu daw ramassé ma incha allah. waaw du la na ma sànni su ma mënee na su ma bee doon na ma sànni la 14 bi yàggul de. boo ko xoolee ne 10 la nag 10 ah. boo ko xoolee ne booy 10 yomb na yow sax bu la neexee 10 10 yomb na 10 ak a yomb. moo jafe. am doole ak am condition. est-ce que am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 mais lan ma ñu boole ne benn temps bu ndaw jërul dépassé kenn jërëb maa ko bu doole maa ko dàq bëre bu koy supporter waaw ba pare gën koo ñeme nag dégg waaw. kontaan naa booy foo toll. sant yàlla saa pare naa. na. 19 ñëw na de. waaw na mooy loolu dañuy xaar suuf bi rek. mooy loolu. mais ngay waajal booy bi. li ma la waajal mooy loolu di ñaan suñu borom may ma ndam rek. xam nga yàlla moo yor lépp liggéey bi war a liggéey lépp ànd naa sax ñu ma war a àndal di sant ma fi yaay yëpp gars yi pare nañ bu yàgg jour bi la ñuy xaar rek. Ada Fass Ada dégg naa Ada Fass sax booy ba. ok. lépp jàpp yaa ngi toog daal di andi booy ñuy bëre di dem. waaw mais ñu ngi yaakaar fan yii ci laa ñu soppeeku ndànk-ndànk. soppeeku waaw am lu ñuy dégg daal di ci am yaakaar nag xam naa fan yii rek. incha allah rabbi. yàlla na sotti ak jàmm. jaajëf. merci beaucoup. Boy Bouba bu yëmbal ma ne Balla bu Yoof Boy Bouba bu yëmbal ma ne Boy Bouba bu yëmbal ma ne Balla bu Yoof ñooy noonu ci diggi géew bi Boy Bouba eh Boy Bouba door laaw léegi bu sori Balla bu Yoff Balla bu Yoff moo ngem moo vax bu beige marron bi Boy Bouba moo ngem moo vax bi vert Boy Bouba door na jël ko Boy Bouba eh Boy Bouba dafa ndànk Balla bu Yoff mi naanaan Balla bu Yoff Boy Bouba eh jël ko. Balla bu Yoff Boy Bouba Boy Bouba bu yëmbal mare Balla bu Yoff Balla bu jàpp na Boy Boy Buuba Boy Buuba daan Balla bu Yoff xoolal la muy def la muy def ma ngay raam Balla nuyu naa. fay naa la. ci loone. Ah, noos nag. non non su ma de aw ma xaalis. yaa ah, dama gis léegi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 damay liggéey lu métti. mais nee na ni nga toll toll ko yomb na mais est ce am doole am doole jëm. bu ñu jàppantee dina xam xamuñu ko doon wax bu ñu jàppantee bu ñu ko taf seen gémmiñ. mais sa euh, lan nga ci nar. dara léegi si. non lan nga ci nar laa si am tànk bëri wu ba pare moom fu ma ko fekk dama ko may jàmm. waaw ah, dégg ñu ne jàmm fu lu ma comment bi jàmm du fa am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 mais fu mu nekkul jeex laa ma ji jeex. yow jàpp rek na nga jàpp. fu ma ko jàpp laa ma ji jeex. barke sëñ Tuubaa fu ma ko jàpp laa ma ji jeex. maa mun ma ëpp loolu maa ngi lekk xale. ki ma la bu ma wax. lan lan la la jaayal fi mu toll. li ma ko xamoon naa bëri. maa ngi liggéey barke sëñ Tuubaa li ma ko xamoon na bëri. doo waxatee. non kii moom moom ñu jàkkoon laa koy wax. dama koo xam bu baax. noo xamee. bëri na. dama koo xamal bëri na de. boo bàyyi ba laa mujj jeexee si rek. commencé génn benn dëkk commencé génn est-ce que làmb ji jëlagul bu làmb ji jegee see dinañ génn man ak moom. kon daan naa jërëjëf. waaw. damaa fekk fële baro. ah baro bu géej waaye dama ko fekk fële. waaw loolu dara baro na far foofu mais booru jëm moo waral mu daan. joma koy jomay tax mu daan. jom mooy tax mu daan. waaw. liggéey na lu tax mu mën a daan Youssou Ndour. lu raw Youssou Ndour liggéey na ko. dégg nga wala déggoo ma nekkul pour Youssou Ndour ndax ñooñu buñ dee liggéey pour ci kanam waaw. kontaan ci yow. bëgg ci yow Lamine. Aliou Sow nuyu naa. Ousse maa lay ziar maa lay bëggee. loone sant yàlla bu wér kay. tey ñu gis la nga ñëw ànd sa rak naka ngeen ko àndee. waaw indi jàmm ak salaam rek mu nekk rak ju baax boo xamante ne wax dëgg yàlla ku dëggal ay magam la kon c'est normal su amee bis yu toll nii ñu ñëw taxawu ko jàppale ko. ñaanal suñu bu ñuy xool Youssou Ndour moo nee lépp lu booy bi dawoon ci signature wala lépp lu mu nekk def bu ñu duggee ci biir géew bi du ci def leen. waaw non mag a xale la mais kii xam presque moom ay mag ñoo ne ci am ndaxte day déglu day déglu suñu conseil kon làmb ji lu koy lu koy mottali moom mooy dal rek dal ba gis lu ñor bu bëree ñoree mu bër bu xeex ñoree mu xeex ci si kàttan yàlla. li gars yaakaar sax amul pour doole ji noonu ñu yaakaar mu ko ëpp mënu ko ëpp booy bi ndax kii xale dafay liggéey te suñu xeexee mën na ko dóor mu daanu. bu ñu. bu ñuy xeexee caat daa dafa mën na ko dóor mu daanu. loolu nga yaakaar. wallaay waaw boobu amul ku mu mënta daan ci kàttanu yàlla. foo tool maa ngi si la ma rek maa ngi ni nekk si na di denc. waaw di entraîné di denc loolu moo fi ne. waaw di di déglu gars yi rek. waaw. baax na kontaan naa jërëjëf. waaw jàmbaar maa lay jaar maa lay fay bu baax naa def ci loo ne. mais foo état de ma gis nii dafa gën a. état bi wàcc na sax. ah oui wàcc na. bon ni la gisee nii. non wàcc na ndax euh, bi may bi ma bi may waaj a bëre soo ma gisoon jamono doo ma xàmmee moom laa gën a pare. tool yi da ah, ah, booy daf ma merloo wul daf ma merloo daf ma découragé la daf ma merloo. tool yi fi mu toll nii fan nga jëm. comme que gannaaw wulli moom ñëwewu la. ba nanguwul rek bëre yow. ñëw xam naa la ñëw lambe ñëw rek waa ñëwewu ma bi laa ñëw. naa la ñëwewu non ñëwewu ma lambe ñëw rek waa ñëwewu ma. mais fi mu toll nii ban booy nga gis ne woo nga koo mën a may sax benn xale. bàyyi ma benn xale. waaw ah, li nga wax parce que Serigne Saliou. ma fay rek. mag suy naa ndox mi. nga jël ci booy yi. oh lu ma ciy ragal. booy wax nañ de. waaw lu ma ciy ragal. booy la la maa gën a wax dama a man dama leen a faale man nga am ay booy dama faale booy yi benn xale. boo amee doole nag da ngay am fit. waaw ah, kon nag loolu la kon loolu la. te na ngay andee sa nag. di ko ñaanal yàlla may ko ndam lu sedd guy ndax xale bu yaru la vraiment xale bu yaru la ba pare joxe cër ñu nag magam la woon vraiment muy lees de. tey nekku fi mu tukki mu voyage ñun suñu tee mel na lees lañu fi taxaw comprendre nga vraiment taxaw bi ñun ñëpp gis nga kenn desul ñëpp a ñëw ndax ci moom la ci xale bi la et xale bu yaru la ñoo ngi koy ñaan yàlla may ko ndam sëdd guy na dal rek dara dina yomb ah non dina yomb dina yomb incha allah rabi yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm léegi-léegi yàggatul ñu dugg ci biir géew bi booy bi jëflanteeg moom kii xale la xale la xale la xale la xale la. xale sport de. waaw ay ay la ah xale sport de xale sport yàlla na ko yàlla defal jàmm daal. waaw jërëjëf jërëjëf. Ndiak dem na dem na ardo ba dellusiwaat dafa ñaan Ndiak may seen. Tapha Ndiane Ndiack Mécanicien Tapha Ndiane Ndiack Mécanicien Tapha Ndiane Ndiack Mécanicien Tapha Ndiane a ngi dox ci kawam

Tafa Ndiaye moo ñu féete à gauche Ndiaye magicien moo ñu à droite dooraat na ko waa Ndiaye ana sa garde doon na ko ba na ko doomu daanu Tafa Ndiaye Ndiaye magicien xale yi nañu jàngiwaat xeex xale yi jàngiwaat xeex Ndiaye gardam bi Tafa Ndiaye Ndiaye magicien dina ko gaañ de dina ko gaañ dina ko gaañ dina ko gaañ dina ko gaañ Tapha Ndiaye ñaak may see waa Ndiaye ana sa garde xanaa ki gardam da koo ka daw na jël ko da koy daan Tapha Ndiaye Ndiaye may see Tapha Ndiaye door na léegi Tapha Ndiane Niang Maïssin Tapha Ndiane door na léegi wala boog Niang door na Tapha Ndiane Niang a ngay xeex Tapha ngay xeex boog Tapha da koo bëgg a door génne moo ngay door doo fayu rëpp na daanu na Niang daanu na Niang xeex ba tegoo ko ci yoon Niang daanu na moo door moo daanu Niang yaa door yaa daanu. Ndiack yaa dóor yaa daanu sifle waat na caatu mboy mboy milku zoo caatu mboy mboy dem na ardo dellu si waat xeex bi mënu cee ñàkk ñaari xale yi dañoo ñeme yaantoo milku zoo caatu mboy mboy caatu mboy mboy à caatu mboy mboy milku zoo jàppante nañu mu ngay mbot takk na ko Caatu Mboy Mbaye takk na Milkzo génn na ca xale yi dañoo mën a bëre Caatu Mboy Mbaye Milkzo na ko fàq na ko da koy daan war na ko ndomba war na ko ndomba Caatu Mboy daanu na Milkzo daanu na Caatu Mboy daan na Milku Zoo Caatu Mboy daan na. su defee li mu andi nga bëre daan ko. waaw mais mënul ñett li ne si kanam moo gën a métti fuuf ok kii laa Jaxal laa bëgg a bëre sama xel Baba Jaxal moo ci billaahi. Fils de ak Aïdara Aïdara Fils de Zakati moo ngi dox ci kawam daw na jóg eh waaye yéen ki lu lay la laa yéen ci kaw day daanu daan na ko daan na ko daan na ko lu xew lan moo xew. Eh, eh, eh. Zakati daan eh affaire yi taxaw na suuf waa lii gaaw na ni Thank you. Ahmed Lagos laay lay la xale yaa ngi noonu Ahmed Lagos Mbengue Mbo Ahmed Lagos moo nekkee ne eh, xale yaa ci digg géew wi Ahmed Lagos à droite Mbengue Mbo à gauche door na xar na Ahmed Lagos bañ Ahmed Lagos Mbengue Mbo Mbengue Mbo Ahmed Lagos Amet la Grosse Mbengue Mboro eh eh eh, eh da daan na ko Mbengue la Grosse lay la la xale baa ngoog xale bi wanaati na daan na ko Mbengue Mboro daan na Amet la Grosse Amet la Grosse amul na Amet la Grosse daan na ko vite fait bien fait xale bi wanaati na boppam la jar na bàyyi xel Mbengue Mbow wanaati na boppam Mbengue Mbow wanaati na boppam diggi géew bi Thiatou Daouda Fall ngi ci diggi géew bi Youssou Ndour am benn morceau bu mu teg ci seen diggante Thiatou Daouda Fall bu weex bu mu teg seen diggante Thiatou Daouda Fall sotti na benn seen diggante seen diggante laaj na Thiatou Daouda Fall laaj na Youssou Ndour Youssou Ndour waxagul waaw am na téere bu mu tekki ma ngi koy dugal sa ngemb la moom Youssou Ndour bu lebu gi arbitre bi sifflé na lundi 6 juin journée Modou Baye Fall grand combat Youssou Ndour bu lebu gi Thiatou Daouda Fall école de lutte Balla Gaye Thiatou Daouda Fall moo féete à gauche Youssou moo féete à droite Youssou Ndour pied droite Thiatou Daouda Fall pied gauche ñoo nga xoolante ñoom ñaar ku ci nekk si ki nga taxaw na jonn kuy njëkk a dóor wala moo njëkk a xeex wala bëre wala bëre doo ko maa ngi seen ñoom Ronaldo di seen ñoom Gamou Gueye maa ngi seen ñoom Fils maa ngi seen ñoom Youssou ñoom ñaar ñu noonu ci digg géew bi di lewaatoo Diatta Rafal na Youssou Ndour na Youssou Ndour ne tekk di xaar booy bi jot wala booy bi dal ci kawam Jackson dafa la koy déglu ku la nekk yaa ci mën yaa ëpp doole da laa bëgg a nax Jackson na ngemb la yéen a màngaañee est-ce que dinañu yeewu Youssou Ndour fëgg ngemb la yéen màngaañee est-ce que daanu yeewu Youssou Ndour da koy déglu Jackson dafa jege na ko mépp na léegi waaye demul. daa bëgg a xeex wala daa bëgg a jàpp cokkaase léegi moom Thiatou Daouda Fall eh, Youssou Ndour Youssou Ndour il est vigilant Youssou Ndour il est daa ma nga ne ku bëgg a dem Thiatou Daouda Fall dafa bëgg a dem bu demee lu mu fay fekk cokkaase léegi moom Thiatou Youssou Ndour remise ko Thiatou Daouda Fall dafa bëgg xeex doon na gauche droite ba doomu daan du ci am jàppante nañu Youssou Ndour loolu la bëggoon Youssou Ndour lii la bëggoon Youssou Ndour jàppante bii la bëggoon dañuy xeex wala dañuy bëree Youssou Ndour Thiatou Daouda Fall Youssou Ndour doon peekil Thiatou Daouda jàppul moo ngi koy xëcc Thiatou Daouda Fall Youssou Ndour Youssou Ndour moo ñëwoon loolu jaakaar lool Thiatou Daouda Fall Youssou Youssou Ndour jàpp na waaye Thiatou Daouda Fall jàppul fenn Thiatou Daouda Fall jàppul fenn Thiatou Daouda Fall Youssou Ndour ku ci nekk yaa ngi ndengeñ Thiatou Daouda Fall fa mu teg na boppa ca put door na dooraat eh, Thiatou Daouda Fall Youssou Ndour Caata dafa lu mu bëgg a def da koo bëgg a songale est-ce que dina fekk daan da daan Caata dafa daan na daan Caatu Daara Fall da daan xale bi bëgg na bëree bi Caatu Daara Fall daan daan bi Caatu Daara Fall bëri na daan na Youssou Ndour vite fait bien xale bi waneeti boppam.